li ñuy njëkk a wax mooy école bi day recevoir élève élève bi ba muy ñëw jógewul si mbedd mi ci kër la jóge hmm? ñu ngi ñaan parent yi rek ñu gën a góor góorlu ci xale yi di leen surveiller si njàng mi di leen surveiller si yi ñuy sol aussi di surveiller seen fréquentation doom aussi da ngay toog di waxtaan ak moom de temps en temps peut-être que parents yi kenn amatul jot ñëpp a ngi daw di utu li ñu indi ci kër yi mais tamit doom yi mooy suñu première richesse waaw ñu leen di conseiller daal di di waxtaan xale yi bu bare bare vraiment dina doon baax bu weesoo loolu xale yi itam ñu xamal leen ni ñoom ay élève lañu ah ay élève lañu élève dafa am comportement bu mu war a am élève boo ko nee jàkk da nga war a gis élève am na façon watin loo xam ne élève war a ko watu am na façon létt boo xam ne élève bu jigéen waru koo léttu am na yoo xam ne élève du ko sol man élève dama bëgg bu ma la nee jàkk rek gis ku correct kaw ba suuf loolu laay wër nga jàng ba pare jël sa kay xotti wala jël sa blouse xotti sa blouse mooy sa carte d'identité hmm? sa kay ñun suñu kay CM2 ba tey mi ngi ak ñun ah ndax suñu bind yu rafet ak suñu mën a jàng ak suñuy 10 sur lañ doon dajale ba tey di ko woon suñu suñu ay doom hmm? xale yi ñu xam ne kay et puis jàng continuité la ce n'est pas parce que romb naa classe quatrième troisième laa jëm dama war a xotti kayam wala sixième non li nga jàng sixième mën nga dem ba troisième wala ba terminal soxla ka nga ubbi waat sa kaye nga xool kaye dañ koy archivé rawatina nag livre kenn du ko xotti kenn du xotti mais daaw yàlla defal nañu sutura franchement fii bi ñu déggee affaire yi rek ñun tam administration jóg nañu am nañu comporté wax xale yi encadré leen ci cour bi ñu benn regroupement ci biir cour bi surveillant général taxaw fii les autres surveillants secrétaires taxaw ma taxaw ku pare rek génn ñibbi vraiment bu ñu xottee peut-être ci mbedd mi la te amuñu ci écho waaw fii daal ils se sont bien comportés